xamne ne ñu bari taamu nañ ko kon ma ngi leen di jaajeufal di leen féliciter di jiital ci nuyo bi honorable député maire bi nga xamne moy le premier magistrat bu commune Bambilor nek suñu kilifa ñun ñep di nuyu aussi sama khalifa sama wasila Thierno Amadou Ba xalifa Bambilor di nuyu aussi chef de village ak mboolem kilifa diine yi ak mboolem kilifa aada yi bu ma ñëwee tey Gorom 2 fii waajib la ma nuyu aussi sëñ Moustapha Mbacké ndax bu ñu defee direct rek improd rek kilifa yu bari dañ koy dañ koy dañ koy seetaan kon maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ndokel ndokkeel ci bisu tabaski bii di baal ñëpp àq di balu ñëpp àq. di wax ne nag lii ñu def du guléet mhm. du guléet ndax bi may dugg fii rek sama xel dem na si kilifa gu mag goo xam dañ ko doon àndante muy sori jaaw yàlla na ko mhm. yàlla te yéexuñu ak ñu bari ñoo xam sak sax euh, tabaski dañ daan ànd ñëw ci kër gi fekk fi kilifa gi saafanteeg moom ndokkalante ak kon ñi nga xamne ñewuñu ta nek ci ay xat-xat wala nek ci wéré di yaram yalla na yalla fudd fëgg seen bop te bu ma suñu suñu xel war na dem suñu xaritu bop muy Landing Meng ndax daana teewe jotaay yi ci gattal dal monsieur le maire sa xarit sa militant sa goro sa mbok mo ñewon ziaré la ci bésu tabaski encourager la ñaanal la yalla ci yeen bi nga xamné mo teggu sa kaw muy commune Bambilor di nuyu aussi sa conseil bi yépp di rafetlu aussi yi nga xamné mom ngeen di tek di nuyu Papa ndjay bu baax kaddu yi rafetna ñu nit ñu ngi lay ndokkale di la ziyaare di leen ñaanal yàlla yan bi oyof ndax yàlla dogal na man nomination politique bi ma njëkk am moom mi moo ma ko def muy conseiller technique ndax yàlla dogal na musuma nekk conseiller musuma am benn ndoom tànk ci politique mais tey bu ma dem bu ma déggee tey conseil technique moom la kon dama koy féliciter di ko ñaanal yàlla ndax dafa am charge bo xamne dafa teggu ci ndodam parce que yalla dogal na tay bu ñuy bind histoire commune Bambilor ki nga xamne mo ñëk nek maire Bambilor yalla dogal na mom mi la ñu honorable député yalla dogal na aussi depuis bu mu nekké délégation spéciale ba mandat yi nga xamne mom la ko yalla def yépp man taxaw na ci wétam bokku na ci ñuko gungé bokku na ci ñi nga xamne taxawu nañ ko ndax lan yaakar bu nga xamne am nañ ko ci mom te dara waralu ko lu dul askanu Bambilor seen nekkin lu gën a lu gëna rafet mu ngi def lu mu man nak mais ñun tamit lepp lo xamne man nañ ko ci conseil ci pexé ak ci wax dinañ gëna a defaraat taxawaat takkaat suñuy dàll gën sa wet gën la jappalé ba nga def fi lo xamne kenn musu ko fi def Lol moy suñu ambition tay lol moy suñu ambition suñu mandat bi da la mer yalla na nek mandat bo xamne li nga liggey si beulé bi ëpp ko doolé fuf ba population yi gën ci santé sen bop maa ngi ñaan yalla si bisu korité gi si bisu tabaski bi si bis bu sel bi si bis bu tedd bi di féliciter aussi ñi nga xamne ñom la andal di féliciter aussi sama goro yi nga xamne ñom la tek fi ci kër gi di jiital si félicitation bi doyen bi kàddu rafet na di nuyoo aussi doyen Ousseynou ñu koy wax Edouard maa ngi koy félicité ko bu baax a baax a baax ndax man ak yow dañu bokk ay xarit yoo xam ne fële ci Wakaam ak fële ci Mamel ñoo xam ne a chaque fois dañ lay tudd ndax lu baax du umpe nekkin aussi du umpe jërëjëf moom moo nekkoon kàddu yi kon monsieur le maire daal kàddu yaa ngi noonu. di bu baax Sidi Sidi sama si di frère Sidi 2014 ba 2022 amul investiture bu may def Bambilor Medina Bambilor te laajuma ko kan la ñuy investir mu ne ma diw diw diw diw diw diw ça je confirme mu ngi nii mu ne ma ne ko yow nag mu ne ma déedéet jëlal diw jëlal diw jëlal diw yaakaar naa loolu mën nga ko seet amul benn nit bu may investir Medina Bambilor Mbène Fall ba ci Waly Ndaw moom mii la muy eh, Ndey Jaañ muy Baylo kon loolu du àndu tey eh, man nag dama koy xamal ne ko man magam laa lu ma ko yéene yàlla naa ci ji man awma problème tabaski bi mu jotee sama conseiller technique yëpp ku ci ne dama laa na Pape Ndiaye génneel xar yi yow yónnee Oumar Gueye junior ñëw ma ne ko comme yaa fi nekk ci conseil technique yi jëlal xar yi nga ñu dem oo leen ci ne ku ci ne mu woole yaakaar naa war na la oo te muy moom que muy ndey li que muy Zal que muy Sidi ku ne man noonu lay àndee ak nit man ñaanuma yàlla ànd ak doomu aadama lay yàq ànd ba di jóge ci ma kon may sàkkuwaat ci yéen ngeen jàppalewaat ngeen jàppalaat que peut-être divergence bu ñu mënti am maak moom divergence bi bu ko demee ba xool ba gis na ne xam na ne la ma koy utal la ma la koy fanqal mooy li gën ci moom mais du gis mukk mu nekk ci loo xam ne njariñam la te muy dëgguma ci ba ko koy bañal moom xam na loolu heure ma waxee Sidi divergence bu ma am ak moom mooy dafa nekk ci loo xam ne mujj du gën ci moom ak keneen ku mu mënti doon kon Sidi maa ngi lay gën talal ak loxo si fi nu jëm muy mandat bi yalla boole ñu ko ñu and ko liggéey ngir bambi Bambilor la commune a besoin que tous ses fils se retrouvent moy lima wax tay amna chaîne bu ma ko wax que l'échec de Diomaye c'est notre échec nous sénégalais donc kenn ku ci ne ci ñun daf ko wara ñaanal président Yalla may réussite parce que à partir de cette réussite le kenen ndax nguur gu jeex c'était Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wad Macky Sall c'est Diomaye donc on parlait de Seyni Paté Elimandoy Oumar Gueye kala Kouli Aline Diop le jour seul Dieu le sait Yalla rek la mais kon bu fekkee cieur la warul nu bolé ay divergence ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre terroir. Kon ken ne kouti nen ti nyoun, eshek gou 5 ans ken nen kou nyou balanga ratrape wad lolo se 5 ans man. Kon de nous war nan un talent. loha maramon. Pour que nous liguions pour ce nous futur, moi ce nous garder, ce nous dom, ce nous recueillir au lac. Lors de notre domicile, on connaît. Quelles que soient nos divergences politiques, mais nous n'y a que ndem diine ji la divergence yi am tarixa yi la divergence yi kii tiijaan la kii murit la kii xaadir la kii laay la te ñoom ñëpp fu ñu jom ci yàlla doo gis benn tijaan nga ne ko doo julli doo gis benn murit nga ne doo julli doo gis benn xaadir nga ne doo julli kon ñun ñëpp ay jullit lañu fan lañu jom quel que soit nos différences de secte muy kii taalif ba cheikh la kii taaliba murit la kii taaliba nangam li nuy bëgg ñun ñëpp mooy jokk ci yàlla kon cette divergence de vue et d'approche que nous avons dans la commune de Bambilor reflète que ne kenn ku ci ne ci ñun war nga mëna jox sa loxo morom loxo ne que ñew leen ñu and xalaat et puis des xalaat positifs man je pense que nit man ngay opposé wu nit mais beaucoup opposé wu amna lo loo wax ko ko mu xam li kat li la mais bind nangam kon kooku loolu loolu la ñuy wax dénigrement man bu fekkente ne dama lay opposé te gëm naa ne li ma lay wax bu ma toogee yow mën naa la koo wax ma seet foo manti ne ma ne la kat lii de nii laa ko gisee lii de nii laa kon euh, siidi ñu ngi lay gën a tàllal xaw nga xoolaat sa taxawaay ak sa toog yi ndax danga nga cee bokk ci dëkk bi dama koy wax toujours Pape ne naa ko man duma wax nit mu yàlla nuyu na la te gisuma amul lu ma koy wax. lem lu ma ko mënti wax rek njariñam la barke Serigne Babacar Sy kon si di jërëjëf vraiment kontaan samay famille kontaan